monsieur Faye ñu ngi lay nuyu Matar Faye maa ngi leen di gërëm yéen di lay nuyu seen auditeurs yi di leen sant di leen gërëm si invitation bi. may fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal kii di directeur exécutif association des assureurs ñu gënoon ko ràññee ci lii di prévention routière muy Matar Faye tey jii euh, monsieur Faye ñu dellu siwaat ci gannaaw Covid 19 bi gisoon nañ ne oto dawul ba tax na euh, wala sax oto yu bëri dawuñu woon accident yi euh, bëriwuloon liñ ci doon wax tey jii ñu gisaat ne dellu siwaat na. lan moo waral euh, selon vous li nga xam ne mooy accident yu bëri yi ñuy nemmeeku ci suñu yoon yi. waaw xam nga accident yi nag moom euh, wax dëgg yàlla bon mos ñu fi jógee xëy na peut-être euh, day am ay jamono yoo xamante ne dafay sedd am ay jamono yoo xamante ne mu tar lool. Mhm. waaye gis nañu si trois mois yi amoon na wàññeeku bu baax a baax a baax si wàllu accident yi. Mhm. aussi bien accident matériel que accident corporel. Euh, loolu nag euh, li ko indi parce que boo xoolee donc accident yi li ko gën a euh, taral mooy accident yi mooy maanaam déplacement yi am diggante dëkk dëkk mm-hmm. maanaam jógee Dakar dem ci yeneen région yi wala jógee ci yeneen région ci Dakar mm-hmm. toujours nag voyage yooyu am na si yoo xamante ne dañuy am ci ay anam yoo xamante ne dëgg yàlla anam yu doy waar la mm-hmm. parce que li li ñu war a sóoraale mooy que ne ñetti yi indi accident bëri na waaye ñetti moom moo ci gën a fës mooy ay xël yu metti benn ak coono ak ñetteel bi mooy Gëm mhm. boo xoolee depuis mille 2004 ba ñu euh, tàmbalee def euh, sensibilisation ci wàllu kaaraange yoon la ñu nemmeeku mooy que ne ak si accident yu bëri am yoo xamante ne ay yàqu-yàqu ay ay nit yu faatu. mu mhm. ngi am guddi diggante vingt deux heures maanaam dix heures ci guddi. Mhm. ba six heures du matin. am na sax ay jamono yoo xamante dañ ne woon pourquoi ñu interdire circulation maanaam transport en commun bi. diggante vingt deux heures ak six de matin. Mhm. te gis nañ ne pour soixante pour cent. Mhm. accident mortel yi ci foofu lay jógee. entre vingt deux heures de matin. Mhm. bañ ko waxee tamit coow jiboon na du nekk nit ñi wax ko waaye gis nañu tey jii mbas mi yee nañu parce que oto demul oto dikkul donc gis nañ ne majeure partie accident yi mi ngi jógee ci transport plus de voyageurs. bon nee naa sànq ñett yi muy un accident mooy vitesse bi ak euh, coono bi ak suñu euh, gëmëntu. Mhm. mais aussi ñàkk sàmmonteeg sàpp ko de la route. parce que ñu bëri am nañu seen permis waaye wax dëgg yàlla seen formation des na. Mhm. donc pour wax ne euh, li indi accident bëri na waaye li ñu nemmeekul tey jii si procès verbaux yi nga xamante ne police wala gendarmerie wala sax man si sama biir direction am na benn unité boo xamante ne bi moom moo yor wàllu constat à mhm. ñun si suñu constat yi aussi PV yi gis nañ ne soit ay euh, xël yu metti la wala ña ñàkk sàmmonteeg sàtt ko de la route. Mm-hmm. bokk na ci liy indi accident donc ñu gis ne euh, depuis bi ñu tëjee frontières yi entre les régions ak couvre-feu bi. accident yi wàññeeku woon na bu mm-hmm. baax a baax a baax mm-hmm. euh, mais nag ma du ma jóge ci registre boobu te du ma massawu aussi sama mbokk transporteurs yi parce que manque a gagner bi bëri woon na lool lool lool ki nga xamante ni ci lii la yaakaar pour yóbbu këram buñ ko arrêté ne ko kat doo liggéey ci ab diir bon loolu aussi nekk na loo xamante ni lu métti woon la ñu leen ci maasawu. Uh-huh. mais di ñaan aussi bu reprendre travail bi aussi comme ni ko defee nii. Uh-huh. ñu ànd ci ak dal ànd ci ak tey te xam na def ndànk terewul kenn egg fa jëm. Uh-huh. leen wax ne également fu ñu sonnee surtout ñu ngi jublu ci maanaam tabaski bi. les déplacements dañuy gën a tar. jóge Dakar dem si yeneen régions yi. parce que surtout parce que population bi nekk fii ñu ngi ba cosaanoo ci région yi. Mm-hmm. te ñoom ñëpp bu fekk jotee dañuy jógee fii dem ci seen dëkk. Mm-hmm. di leen ñaan rek ñu ànd ci ak dal ñaan également ci côté boobu aussi que ministère. bi yore wàllu santé bi ak wàllu intérieur bi mm-hmm. ñu gën leen a ñaaxaat parce que euh, li fi am ci ay contamination ci Dakar ci wàllu Covid bi bëri na bëri goo xamante ne gi bu ñu moytuwul wax ak ñoom je crois que ñooñu ñoo nar a dem infecté ñi nekk ci région yi. donc vraiment nañ ci continuer di sensibiliser euh, pour que ni ñi jël seen matuwaay ba wàllante bi gën a wàññeeku ci côté boobu. Mhm. sànq ci suñu waxtaan ci kàllaamay nasaraan am na yi nga xam ne andi nga ko comme facteur jëm ci euh, wàllum technique bi nee nga li léeg-léeg nga gis ay oto yi nga xam ne ñoo ngi daw amuñu làmp amuñu signalisation ak yeneen ñi ci mel euh, tey mu am visite technique nga xam ne euh, dañuy saytu lii di lii di oto yi lan mooy sansam. waaw xam nga tey jii visite technique état moo ko instauré mais tey jii compte situation bi nga ñu ngi koy vivre visite technique yi dañ ko proroger parce que tey jii dañuy bañ nit ñi gën a dànkalikoo foofu ci centre visite technique bi. Mhm. pour di def seen visite. Mhm. donc dañ leen di programmer dafa am calendrier boo xam ne dañu ko teg tey jii boo demee foofu rendez-vous yi dem na ba octobre sax. Mhm. parce que mënuñu jël ñëpp en même temps en au même moment mënuñu jël ñëpp mais léeg nga xamante am am na visite technique jeex na depuis le mois de juin. waaw kooku autorisé nañ ko pour mu circuler. waaye tamit je pense que ne su fekkente ne si circulation boobu. gis nañ ne moom am na ay manquement wax dëgg yàlla waruñu ko bàyyi mu dem parce que mën na lor ñu muy fekk ci tali bi. kon fu mu nekk noonu ñan ñoo ñoo jël responsabilité boobu. non xam nga tey ji état xam nga tey état mooy def technique. Uh-huh. à travers sa direction la direction des des transports mais tey jii génne nañu communiqué comme quoi que ne ñi nga xamante ne seen visite technique jeex na nañu jël rendez-vous pour ñu ñëw defaratal leen. mais euh, rendez-vous yooyu ñuy jël. dafa am ay ay ay ay ay ay ay ay télé ay app. maanaam autorisé nañ leen pour ñu circuler. Mm-hmm. mais si circulation boobu tey jii su fekkente ne am na ay manquement ci oto boobu parce que oto boo xamante amul frein. Hmm. mais duñ ko bàyyi mu circuler. dëgg la oto boo xamante ne aussi parce que yow peut-être que policier bi wala gendarme bi mënoo xam ndax oto am na frein wala amul frein waaye boo gisee teel les bi jël kalam benn morceau bois. Hmm. boo avancé tuuti mu def kal boo taxee mu def kal boo déggee avancé mu dindi kal bi mais xam nga loolu dafa dafa dafa dafa sax dafa dafa hmm. dafa euh, bi. xaw na perturbé wu. mais même bu perturbé aussi tey jii il faut dire que yow miy dawal oto bi da nga war a nekk un usager responsable. responsable ça on peut on peut parce que y a dafa am benn benn benn situation bu nekk fii situation boobu moom moo tax tey jii ña waroon def seen visite technique ci jamono yooyu mënuñu koon def parce que santé dañ ko tëjoon pour éviter que virus bi daal di law. Mm-hmm. mais tey jii nañ ko mënuñu jël ñëpp dañu leen jël ndànk-ndànk mais yow mi nga xamante ne sa oto am lumière wax dëgg yàlla war nga am responsabilité xam ne la ngay def c'est une activité te activité boobu yaa ngi koy def dans un espace organisé. Mhm. muy tali bi bu boobaa nag nga mën na nag jël sa matuwaay. Mhm. réparer ses lampes muy clignotant muy feu de croisement muy feu euh, muy muy feu route. Mhm. nga xool également sa état pneu yi nawet lañ nekk nga defaraat say frein mais loolu su fekkente ne yow sa wàllu bopp yow yow sax xel mayu la pour nga def loolu mais man xamatuma ci dara. donc responsabilité individuelle daal dafa war a ah il faut pas que lu xew voilà tey jii je pense que les usagers doivent être responsables et puis se comporter bon citoyen mhm. pour mën a moytu yenn yi waaw tey li fi xew barki démb ay camions yi daanu tali bi ay camions yi ñëw di mbëkk ay nit parce que amuñu frein mhm. mais loolu loolu dafa jéggi dayoo donc loolu également il faut que l'État également tey jii euh, ñu ngi doon wax ne Sénégal dinañ dem euh, ci renouvellement parc automobile bi ndax oto yi fi nekk yu bëri dañoo màgget euh, fan lañ ci toll waaw gis nga oto yooyu am na si yoo xamante ne sax mën naa nga jet mu ñoo la mag wala ñoo mag parce que oto yooyu yàgg nañ yàgg boo xamante ni ay camion ay berlier mais yooyu kenn déggatu ko fenn uh-huh. donc camion yooyu yàgg nañ yàggaay boo xamante ne bi ñu ngi continuer daw ci dëkk bi uh-huh. donc liñ ci jublu woon li ci état du Sénégal jublu woon mooy en fait renouvellement du parc automobile uh-huh. que nekk les taxis renouvelé nañu parti que nekk le transport public de voyageurs renouvelé nañ ko man bokk naa ci ñe tàggat ah. pour euh, soppi seen nekkin seen euh, doxalin ci kaw tali bi euh, loolu ay junni junni chauffeur former na leen mhm. te projet boobu ki ko yoroon mooy CETUD mhm. conseil exécutif de Dakar mhm. donc tey jii mën nañ ne ci côté boobu euh, def nañ ci lu bëree bëri bëri boo bi mu demee ne bi ñu ba ci biir ne gis nañ ne également que camions yi fi nekk tey jii def ay transport de marchandise wala di def ay transport de de de de de de béton de sable. Mhm. gis nañ ci ñoo xamante ni màgget nañ la màggetaay boo xamante ne bii dafa jéggi dayoo donc boobu mu taxaw tey jii a ne dañuy maanaam renouveler en fait le le parc automobile des gros porteurs. Mhm. ba état bi avec le président Macky Sall def nañ ci ay jéego ba commencé woon sax ay euh, am ko defaree fi lañ mhm. donc tey xëy na peut-être que ñëpp seen loxo jot a sonn xëy na ñu dañ leen seet nu ñu leen di faciliter ñu accéder au crédit pour mën a am ay ndaamaar yu bees yoo xamante ni danañ si mën a liggéey te dina mën a rentable mhm. waaye nag mënuñu continuer Euh, état oto yooyu ñu leen di bàyyi ci dëkk bi ñu def ay ñombe di mbëkk ay oto di mbëkk ay ay ay kër di di défoncer également euh, l' infrastructure yi nga xamante ne moom la état bi euh, tabax. Mhm. je pense que loolu aussi dafa laaj beneen taxawaay beneen seetlu pour ñu xool na la ñuy stopper loolu parce que loolu mënul wéy. Mhm. dafa am yoo xamante ne pour un pays émergent pour réew moo xamante dafa a kanam pour réew moo xamante ne dafa ñëw pour moderniser ay ay ay ay am. Mhm. je pense que loolu aussi bokk na pour que ñu freiner ko bu boobaa nag du ceeb wala dañuy bu ndaxataal kenn mais dañuy bëgg rek lépp jaar ci yoon te pour que lépp jaar ci yoon aussi il faut ku nekk également bay sa waar lu rek dañ ne état bi a jël lépp loo xamante ne war nga wax xalaat loo xamante ne war na la yow nga def ko pour que lépp aussi jaar ci yoon mu am lu ñu jëlaatoon tamit pour lépp jaar ci yoon ci euh, dem beeg dikk bi muy camion yi sax amoon waxtu bi nga xam ne dañ leen ko jagleel ngir ñu mën a daw mais ba tey dafa mel ni loolu en tout waaw xam nga nag su nga su su nga réew Euh, su fekkente ne dañuy dañuy dañuy ëff di matt du sotti moi je pense que ne tey jii am na ay textes les textes sont là ay ay textes yu baax la macha allah. Mhm. muy loi muy arrêté nañu ko appliquer dañ ne woon camion du dugg ci dëkk bi. Dakar bi Dakar pas avant neuf mhm. waaw texte boobu ba ah, si sama si si si juste enfin sauf euh, erreur de ma part ba tey ba sànq traité ba arrêté ba mi ngi fi. Ah, lu tax mënuñu ko appliqué. waaw ah donc camions yi ñu daw booy xëy suba teel sax di liggéey même sept heures matin loo teel teel teel di nga gis am na ay camions yoo xamante ne ay gros porteurs. ñu ngi a bokk yoon bi yéen a ngi a ngi euh, bokkante ci oto mhm. te dañ ko préféré pour que ñiy liggéey mën a dem liggéey tranquillement sans que ay camion di tomber en panne wala di euh, di def ay accident di leen xañ effectivement euh, seen déplacement seen mobilité ba tax ñuy arrivé en retard seen bureau yi mhm. moo taxoon ñu ne nag à partir de seize heures aussi danañ leen may aussi ñoom ñu mën évoluer tranquillement ñibbi seen kër avant que aussi gros porteurs yi di mën a évoluer mhm. mais am na réew yoo xamante ne yi xel xalaatul nga gis un gros porteur en plein centre ville. Mhm. kooku xel xalaatu ko. Mhm. non seulement euh, warul warul daw les gros porteurs du ñu daw les samedis et les dimanches mais deuxièmement booy daw aussi c' est pour faire de la livraison te di nga ko def entre peut-être euh, vingt deux heures vingt trois heures six heures du matin. mais bu 6 heures de matin jotee bu fekkee bu ñu fekkee ay amende la. donc mhm. dafa mel ni donc ñun dañu dañu dañu dañu mën a euh, masla de trop et je pense que masla boobu nag mu may indi yenn yi donc je pense que tey jii arrêté bi am na nañ ko appliqué ñëpp respecté ko benn ñaareel bi camions yi nga xamante ne aussi dañu am ay manquement mhm. nañu jàpp ci yàlla dem defar seen oto parce que accident dafa arrangé wul kenn xam nga tey ji euh, kii def accident bi barki dem rey si ñetti nit mais kooku jaaxle na ay mbokkam jaaxle na ñu mu bokk liggéey bi jaaxle na mhm. et pourtant su fekkonte ne en gisoon na erreur boobu mu réparer peut-être euh, frein boobu je pense que fitna waa fitna du yeewu mhm. donc tey ji moom dugal na boppam problème et puis dugal na aussi ay mbokkam problème euh, di ñaan yàlla rek euh, wax dëgg yàlla lii mu yem fii et puis ñuy invité nit ñi à la prudence mais également invité ni ñi aussi à leur niveau de responsabilité. Mhm. donc niveau de responsabilité boobu képp kuy wëy ci ak loo mën ci yëngu soo ko jiitalul je pense que ay musiba rek nga mën a jur. Mhm. donc di di di ñaanal ñëpp euh, feetu jàmm. di leen ñaan également ñu ànd ak dal ci tali bi euh, di leen wax ne euh, def ndànk moom teralu kenn egg fa nga jëm di ñaan ñëpp jàmm mhm. ñuy jeexal ci gërëm yooyu nga yor ay ndombal tànk yu bees muy directeur exécutif association des assureurs euh, mhm. li ñu génn euh, muy semi confinement lu bëri taxawoon <laughs> ci jëm activités yi muy transport bi ñuy waxtaanee ak lii di commerce ak yeneen ak yeneen tey jii ci wàllum assurance nan la ñu mën a taxawee ngir jàppale ñooñu nga xam dañoo impacté wu ci Covid bi. xam nga mbas mi dafa bett ñëpp. Mhm. du Sénégal rek boo demee Europe boo demee états foo dem euh, gis nañ ne lii kenn prévoir ko woon. dëgg la euh, wàllu assurance aussi ñu bëri xalaatuñu woon. jël assurance pour couvrir maanaam lu mel ni mbas mi mel mhm. euh, sax boo xoolee lii di ay épidémie ay mbas pandémie dafa nekk loo xamante ne lii bokkul ci souvent ci périmètre d'intervention des assureurs mhm. ba tax na tey jii Euh, manque à gagner boobu am ci commercant yi am ci hôtelier yi am ci restaurateur yi am même ci transporteur yi. Mm-hmm. Euh, li koy mën a euh, maanaam atténuer mooy en fait ndimbalu état ba nag ñun ndimbal loolu état di joxe. Mm-hmm. état mënu ko génne moom rek dafa solliciter en fait toutes les forces vives de la nation. Mm-hmm. ne kat lii xew na te wax dëgg yàlla ndogal la boo xamante ni kenn suralee ko woon. léegi na si ñëpp dugal seen loxo ñu xool nag nan lañ koy redistribuer pour que boo ñàkkoon téeméer ah di nga retrouver peut-être euh, je sais pas euh, juróom fukk wala di nga retrouver euh, juróom ñaari waaw <laughs> donc euh, mu nekk loo xamante ne lii wax dëgg yàlla assureur yi bay nañ seen waar parce que lu toll ak genn wàllu milliard jël nañ ko jox ko nguur gi nekk kat ñoo la jàppale lii parce que xam nañ ne mbir mi métti na mbir mi tar na euh, te ñëpp ci war dugal seen loxo donc woote bi nga woote yow président de la république dégg nañ ko te dañ leen si wuyu si te lii dañ koy joxe nii mais euh, bu laajee tamit ñu duggaat suñu ñu laa laalaat suñu gafa danañ ko laalaat pour mën a euh, jàppale la parce que lii état rek mënu ko def tey ji ba demoon tey ji en France lañ fa joxe tey ji moom it jéggi na dayoo mm-hmm. assuré di dañuy mobiliser wu pour joxe nga dem beneen dëkk également assuré di mobiliser pour joxe parce que assuré assurance aussi boo ko xoolee sa définition première mooy prévention mooy solidarité te solidarité boobu nag euh, yàgg nañ ci bi ci wooyee tamit dañ ci dem wuy ji si pour mën a xool nu ñuy accompagner l'État pour que mu mën a euh, wax dëgg yàlla euh, atténuer crise bi ak ci ñi mu dal muy hôteliers yi muy transporteurs yi muy également euh, restaurateurs yi ak commerçants yi. docteur Mactar Faye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf soxna si Diatta maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax yow it di nuyu seen auditeur yi di nuyu seen waa rajo bi di dellu di gërëm ak di sant.